bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallaahu taala ala sayyidina wa mawlaana muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa xadiimihi wa sallama tasliiman safaru bamsasin junnatun mbokk yi ñuy seetaan ci leeral tv leeral point net mbokk yi ñoo ngi leen di nuyeeti bu baax a baax di leen ziar mbokk yi seen émission bi nga xam ci ni tey ji moom lañ leen digtal yéen ñi nga xam ne yéenay seetaan leeral TV leeral point net émission bi nga xam ne moom mooy émission safar gi safar gi buñ ko waxee mbokk yi tey dañ leen di toppal fépp foo xam ne am na safar ci digg Ndakaaru Njaay foo xam ne am na safar ci banlieue bi dañ leen koy toppal waaye mbokk yi tey maa ngi fii fi nga xam ne mooy poste caaray boo duggee ci biir poste Thiaroye fi nga xam ne moom la bis bi di gaare ci biir foofu fa laa nekk fi nga xam ne moom la mbokki Baay Faal mbokki taalibe yi fa la ñuy defee seeni i safar muy ay jàmbaar yoo xam ne yàgg nañoo def safar bii mooy huit ans yoo xam ne ñoo ngi koy def safar fii nga xam ne mooy Poste Thiaroye di ay borom yu baax waaye tamit ay taalibe di ay ndongo Serigne Touba nag bu soxlaa ñoom dañuy bàyyi seen yitte yëpp def ko ci yoonu murit waaye tamit dañuy génnee lii xam ne denc nañ ko ci banque yi def ko ci yoonu Serigne Touba amatuñ dara lu ñuy wax parce que Serigne Touba moo xew la dañuy bàyyi liggéey arrêté lépp mbokk yi di joxe ay bernde mbokk yi di joxe lépp loo xam ni xeetu lekk la loo xam ne si ni baax na ci doomu aadama rek taalibe yi nga xam ne nekk nañ sama ginnaaw gis nga li nekk sama ginnaaw seex li nekk sama ginnaaw ay mbokki taalibee ko def li nekk sama ginnaaw ay jullitu yàlla ñoo fi def li nekk sama ginnaaw ay taalibe Serigne bamb ñoo ko def li nekk sama ginnaaw képp koo xam si ni jullitu yàlla nga rek yaa ngi ci biir safar gi mbokk yi li nekk sama ginnaaw bari na cin waaye nekk sama ginnaaw gis naa fi ñu teg ay mbana yu bari yoo xamante ni maanaam xepp xeetu lekk gu neex gu ne dañ koy togg tey pour daajale ko postu Thiaroye li fi nekk yëpp ñu jox leen ko képp koo xam ne lu fu waay nekk rek ci postu Thiaroye rek tubaarkàlla dinañ la fekk fa nga toog ñu jox la nga lekk nga naan mbokk yi seen émission safar gaa ngi noonu ñu ànd seeg seen xarit seen doom nday fàllu ma ànd seeg suma xarit seex seex maag yow ba Touba maag yow ba Touba maag yow ba Sikori noonu la ñuy ànd ak yéen fépp fu safar nekk rek ci àdduna mbokk yi dinañ leen kon ak leeral TV leeral point net mais nuy nañu ñëpp ci Sylla borom say 50 yow la ñu dem Cheikh let's go. let's go gis nga lii ndawal laa ngi nii xool naa fi fukki cin yoo xam ne lépp ay bernde la yoo xam ne dañ koy jox. jullite yàlla yi nga xam si ni ñoom ñoo nekk ci post caare ak feneen ak feneen fu waay nekk rek dañ la fekk jox la nga lekk nga naan gis nga boo xoolee lii yëpp ay mbana la boo xoolee gis nga mbokk taalibe yi kenn ku ci nekk yaa ngi bàyyi sa yite nekk ci biir taal bi fekk taal bi pour bu tàkk bu ko defee fekk cin li jël jàpp affaire yooyu bu ko defee ñu mën a xool nan la ñuy doxalee mais seex boo gisee mbokk taalibe yi nga xam ne ñu ngi liggéey liggéey bu am solo dinañ leen wan li nga xam si ni moom la mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom mooy waa Poste boo xoolee seex lii jëlal ma ceeb bi ceeb a ngi nii diw a ngi nii lépp ay xale la yoo xam si dañoo nangoo liggéey gëm seen bopp di topp sëriñ Bamba bu sëriñ Bamba woote ñoom dañuy bàyyi seen nit yëpp ñëw waaye seex nañu dem ci waañ wala ñu xool tamit gis nga seex ci yi ci yi bari na kàll ci nii bari na cin yi bari na gis nga seex lii ma la woon nii yëpp ay cin la yëpp ay xale la na ngeen def yéen si jàmm naka safar gi safar gaa ngi neex ah tey lan ak lan geen i togg. Ah, ceeb yu macha allah ak def suñu mbaxal def suñu suñu mbaxal gaa ngi ni xale yee ko nar a mbaxal. yéen yor mbaxal gi. ñoo ko yor. ah mbaa mbaxal gi dina neex. dañuy mbaxal dañuy ràcc mu dee. saf mu saf saf. dina am kaani. lépp du dina am lingom. dara yow. dara du manqué waaw loolooy xale yi nga xam ne wax dëgg yàlla ñoo topp seeni mag ñoo topp seen i mag topp seeni i kilifa wax dëgg yàlla dundu safar gi mais seex nañu dem fii ci waañ fii nga xam ne mooy baas bi yaay maa ngi leen di nuyu na ngeen def yéen si jàmm alhamdulilah yéen nekk ci waañ bi naka waañ bi mu ngi dox ah yaay dara manqué wul. ay dara mankaani fi mu toll nii lépp macha allah liñ man ren yaa nañ ko man lu ko ëpp déwan yàlla nañ ko doon di ko safara safar ay déwéni déwén yàlla dolli xewal geeg sutura geeg man-man ji yokk wér geeg wér léegi yàlla bu ko kenn wutee. soble seek ak li nga xam ne mooy lu jum bépp mbaa seerul ci marché yi. ah seer na nag waaye sant yàlla rek dañuy xam ne moom fi mu toll nii kër murit ñoo woote lépp lépp uh, mat na lépp ñeem dara dara manqué wut macha allah sa kaw sa kanam rek. waaw jërëjëf. maa ngi lay ziar. ñoo ngi doon lay ziar. yow yi. Ah, <laughs> tey mën nañu xam waañ bi nan lay demee ak lekk gi ñaata mbana ngeen togg ak affaire yooyu. ah waañ bi de at mu jot soxna yi dañ ciy jàpp bu baax mbana yi quinze lay doon ak ci nu soos muy 16 ñu togg berndeel gaay yi ndawal gi dina doy ren di bernde la ñu wax te 18 safar la ñu nekk. te defe naa sama gaay bi biñ koy commencé ci ñaari cin la woon ba tey ñu def lii. te gëm naa ni dañuy dem ca kanam ndax yoonu Serigne Touba amul tànk ginnaaw kenn du ko jëfal di réccu sant rek di leen ñaanal lu ñu mën ren bu déwénee yàlla nañ mën lu ko ëpp jigéen ñi nag mënuñu leen a fay man maa ci gën a ndaw njiit nit du ko def boppam dañ naan yàlla moo koy def nit. est-ce que poste gépp fu ci nekk fu waay nekk rek dinañ la jox lekk nga euh, euh, berne nga lekk ba suur naan ba màndi. fu waay nekk di nga lekk ndax li la koy wax mooy boo xëyee da ngay dégg seen safar gi neex na seen safar gi neex na kon fu waay nekk rek yëg nga ko ndax ñun dañuy dem ci marché yeeg fu nekk sant ñëppay lekk day doy sëkk macha allah day doy ba tey noo gisee Leral TV ànd ak yéen ci safar gi. Leral TV kontaan ci ñoom rek parce que c'est la première fois li am kon dañ leen di sant di leen ñaanal seen seen bi gën a jëm ci kanam lépp lu ngeen mën ren bu déwénee ngeen mën lu ko ëpp. ba mu nekk ay leeral yi leeral TV ah ci barke 18 safar bi ñun ñëpp fekkee tal ñu koy defee nii di ko béggee comme nii barke Serigne Sarr. mais bi nga ko dalee def ba tey nga ànd seeg jigéen ñi yaa ngi gis yokkute. bu baax maa ngi gis yokkute bu baax a baax a baax a baax. parce que ñun Poste Thiaroye ñun ñëpp benn lañ ñun ñëpp benn lañ bu bànneex ñëwee ñoo koy bokk bu naqar ñëwee ñoo koy bokk suñu dara lép lépp dañoo ànd boo mel ni ñu bokk ndey ak baay te lool rek dafa neex nekk ci garage yéen ñëpp ngeen bokk li ngeen di jaay nekk benn dafa neex kenn du romb sa morom ba ni diw nangam diw nangam dafa neex man añ laay jaay. añ laay jaay waaw. yëpp doo jaay noo non du ma jaay yooyu weeru Serigne Touba bu teroo ñun jaaykatu añ dañuy nelaw yi dañuy tëri di ren di bernde maye nit ñi lekk xewlu bokkut ak am jaay ma di dañuy dem tëri rek waaye Serigne Touba dañuy jox lu nu yóbbu Touba barki Serigne Touba ndax ñoom du nu seetaan benn yoon. jërëjëf jàmm kontaan naa ci yéen. Eh, postare ga teg ci nag daal di baa ngi nii xool leen ko nii di gërëm waa Leral TV nag di leen sant di leen gërëm di leen wàññi ne seen rafet na lool ñu sax safar ñu la ñuy nekkee nii nañ lekk nañ naan dinañ naan ba maan dinañ lekk ba suur bu demee tubaay noonu yàlla ñu yàlla taxaw rek. cin gu nekk ñaata nit ñoo ko bokk. cin bu ne benn nit a koy bokk ndax ñu dañoo bëgg lépp yaatu ñu bëgg lépp yaatu lépp saawaan baa parce que sëñ bee woote waaw. jërëjëf lañ am jàmm rek te sakana ñu koy mën. yaay cin li tàng jamono ji dëkk bi tàng na ak cinu mbana lii nga teg diwlin gi di sens soble beeg loolu yëpp a ah, nga ànd ak tàngoor bi lépp yaa ngi muñ di liggéey. jaral sëñ bee ñu ko jaral si ganaar la ñu njëkkee mujjee si ay nag. wóor na yàlla ak pain au lait ba léegi ñu nekk ak ñoom ba tey ñuy rey ay ñetti nag ñeenti nag xam nga ne loolu sant yàlla la wallaahi wallaahi. dégg naa yow leeral TV ngay topp de. bilaay yàlla mi ñu tiim xam na ko xoolal sama doom ji sax moo la ko wax. moo ko moo tax ma xàmmee la leer rek laa seetaan. ak sama bakkanu doom sa émission yëpp du ma ci raté dara yaa mbër mi nekkoon ja ba tey maa ngi ko toog di ko seetaan. billaahi yal na leen yàlla defal jàmm maa leen. maa leen gën a kontaan maa leen gën a kontaan maa yaayu xale yi wër na yàlla maa yaayu xale yi bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa xadimi wa sallama tasliman Fall ziar nañ la bu wér tawfeex baa yaa ngi ci jàmm sant bu wér a wér a tey ñoo ngi leen fekk fii tey bii mooy huit ans tey moo am huit ans ngeen di safar mën nañoo xam tey safar gi boobu ba léegi ne na ngi leen koy dundee waaw boobu ba léegi mbëgte rek lañ koy dundee de waaw chaque at mu gën a néew xam nga mu gën a neex ba ñuy commencé ñu ngi commencé woon ci benn xar ak 40 ginaar waaw ànd ak soxna yi nga xam ne moom xam ay jàmbaar lañ mais boobu ba léegi suñu borom mu ñuy dimbali chaque at day gën a neex xama ñu gën di cant rek waaw. bu Serigne Touba wootee ci suuf safit bi 18 safar yaakaar naa ne lépp loo leen amoon dafa mel ne génnee ngeen waaw dañ koy génne moom ba jeexal tàkk duñ bàyyi dara te gars yi ci tamit ay jàmbaar lañ wax dëgg yàlla am nañ parce que lii yombul daal jël sa alal di ko def si lii ba pare boole sax ñàq gars yi nga gis si yëpp dañoo bàyyi seen liggéey nekk waaw dañuy dooleel tout le temps guddeeg bëccëg démb rek fi lañ nekk ba une heure du matin ba deux heures gaa yaa ngi fi rey nag yi defaraat foofu yeesalal ko xam nga nettoyé poste bi waaw ànd ak góor yàlla yi nag ñu ngi ciy jàpp bu baax a baax yaay booy yi waaw du sant sëñ Tuubaa bu wér nag. xaalis boo leen doon denc la wala yéen boole seeni dërëm ak seen i ñaar dërëm boole ko ku ci nekk mbokk taali bu su ne la am nga génne ko wala yéen lii yéen ko génne wala dañ leen ko jox wala seeni i moyen bopp la. waaw am nañu suñu moyen bopp am na ñoo xam ne gars yi dañ ciy jàpp lu si mel ni grand Moussa Dibo wax dëgg amuñu payam waaw def na lu ñuy def lu ñuy sutura la koy def te mu ngi koy def ngir jëm Serigne Touba waaw li si des nag ñun ñoo jaan jaayante suñu bopp ñun suñu biir ñun membre yi fi nekk waaw a gars yi si nekk nga xam ne ñu ngi ciy jàpp waaw mais nekkul lu ñuy denc nekkul lu ñuy dara waaw Pastef la rek. waaw Pastef la amul leneen. bu ñu xaymaa tey li ngeen fi benn ngeen fi def tey bu ñu xaymaa war na mën a toll si ñaata ci xaalis. waaw safar gi ay dañuy fare ay 3 500 3 800 4 safar gi dañ ciy def xaalis. dañ ciy def xaaj bu bëree bëree bëree bëri waaw ànd ko ak suñu mbokk taalibe yi wax dëgg yàlla seetaanuñu benn yoon parce que lii yombul jëkk benn semaine rek dajale benn somu muulun bi nii yombul ci réew mi toll waaw mais gars yi ñu ngi ciy jàpp bu baax a baax a baax a baax gars yi ñu ciy jàpp bu baax. te mbokk taalibe yi yéen a ngi ciy gis yokkute. waaw ñu ciy gis suñu bopp wax dëgg yàlla waaw safar gi moom suñu tuwaa seetaanuñu waaw chaque at dañ ciy gis yokkute chaque at dañuy gis yokkute bu wér a wér a wér barki alxuraan waaw bañ koy def xam dañoo toog nii rek benn fan def ko suñ borom boobu ba léegi tey la am huit ans ñu ngi koy def waaw ñu ngi sant Serigne Touba bu wér amuñu payam Serigne Touba moom loo ko def xam nga da koy duubale waaw. Eh, eh, si jëwriñ ñi nga bokk tey eh, jëwriñ tey lii tey mbégte mi tey lan la. maanaam mbégte mi moom di sant rek di am mbégte di kontaan lool si bis bi parce que ñun moom ay taalibe lañ bëgg a doon comme nag ay taalibe lañ bëgg a doon. lii rek moo ñu war topp si yoonu taalibe tey moom am lañ mbégte lool mbégte bi ñu gën a am nag mooy teew bi ngeen fi teew yéen parce que li tax ngeen teew fi yéen ko xam yàlla na suñu borom defal lu kawe seen njot li ngeen bëgg yàlla na ngeen ko am mais noonu tey am nañ kontaan bu mun ñoo wax dara parce que suñu xool dafa fees waaw dañoo am mbégte rek kontaan lool sax ñun bëgg nañ mbokki taaliba yi fu ñu nekk nag ñu fekk leen fa ñu leeral TV ndeysaan lo am solo la am solo la mais am nañ kontaan bu baax a baax ci yéen waaw tey nag xama di waajal màggal gi ñu ko doon def chaque année di safar fii si poste yi waaw mbokki julli yeeg mbokki taaliba yi ñëpp lañ siy jàpp ñëpp lañ siy dugal seen ñaq kon tamit ñu ngi siy ñaanal ñëpp ñi nga xamante ni ak ñi defoot ñëpp ñu ngi leen siy ñaanal suñu borom defal leen si ñoom tamit li kaw seen jot am nañ mbégte loolu nag ba mun ñoo wax billaahi. jëwriñ maa ngi ñu ngi lay sant ñu ngi lay fay. boobu ba léegi yaa ngi si liggéey bi gisuñu la ci loone nekkoon waaw maa ngi si organisation bi rek lijjanti matt yeeg ah, li ci war a dem ak ceeb yeeg diwlin yeeg affaire yooyu pour ñu ñëw parce que démb fi fanaan di defar nag yeeg yooyu waaw guddi gi yëpp ñu fanaane fi yow ñëw nga fi ñu defar nag yi bëggee gaa yëpp toog ak ñoom fii ba fajar gi après dem dagale diwlin yeeg ceeb yeeg ñu ci war a dem ci safar gi daal safar gi moom dara du doy lépp lu ñëw day dañ ko ci def waaw loolu la ñu woon mën nañoo xam journée bi tey organisation bi nan lay demee bu nit ñi añee pare lan mooy am guddi ngoon geeg yooyu ba guddi. waaw saa yi dañuy li sëñ bi waxoon rek maanaam bernde yi lañ gën a farataal ñun bu bernde yi rombee am na ay jànkat yu fi ñëw ku demee ne galas ak saa ak yeneen boo yi nga xam na ñoom jiili ñoom ñoom ñoom ñoom magu magu magu tamit day kii magu tamit day ñëw waaw gars yi bëri dañ ñëw barkeelu si dañ siy barkeelu waaw bu baax baax ba ay vingt vingt deux heures sax. waaw si kanam Assane Assane yaakaar naa ne yaakaar naa assan yaakaar naa ne ñu ngi jeexalatu émission bi ndax euh, bàyyi nañ suñu te yëpp ñëw ànd ak yéen gunge leen ci émission safar gi bi ñu ànd depuis dem ba léegi tey nan nga ko dundee tey assan en tant que jëwriñ. waaw waaw waaw kontaan rek wax dëgg yàlla safar gi moom bu ñëw ma gën a kontaan bu ñëw rek sëñ Bamba wan ñu boppam wan ñu dooleem barke alxuraat billaay wallaay kontaan dong dong dong laa def amul leneen ñoom nekk sama xol lu kontaan di sant ak gërëm nag ñi nga xamante ni ñoom jàpp ci safar gi waaw xam naa sama booy yegg nan la ko waaw ñii ay jàmbaaru suñu Bàmba lañu waaw comme ni ni ma seqal safar gi ñëpp ay ñoom Modou Lo mi ñoom Cheikh gay ñoom Ibulaay Toumane ñoom kii nu mu tuddati Cheikh Sarr xam nga Cheikh Sarr bu baax Cheikh Sarr borom jaam a gën waaw ñoom dafa jàpp ci safar gi bu baax mais mention spéciale nag ak Moussa Diba da see jàpp bu baax a baax a baax parce que suñu bët xonqee moo gaaw nañu dem leen gaaw da ngeen safar. Moussa Diba nag Moussa Diba waaw du ay caaxaan ma nga koy sant bu baax di ko gërëm parce que caaro gépp tamit ñu ngi koy sant wax dëgg yàlla ku def lu baax ñu sant la. la man ku bañ ma defal lu baax ku bañ ma sant la bu ma defal dara. ku ma defalul dara nag du ma la sant lu mu ma xas damay xam ne la nga yor moom moo ko suñu Bàmba moomu ko mënu ma see jot. lu leen Serigne Bàmba defal. yee yaa ngi dugg fu doy waar nag parce que sëñ Bamba lim ñu defal dafa yéeme kooku amut lim ñu defal dafa yéeme parce que benn nga nekk secteur boo xamante ay millions de personnes fi nekk ñu tudd sa tur rek dafa doy sëkk loo soxla ñu jox la ko dafa doy sëkk ñii ñëpp ay taalibe sëñ Bamba lan koo ci laaj Assane mu ne la xam naa ko bu baax sama nit la xaritoon ñëpp sëñ Bamba man loolu nga xaritoon ñëpp sëñ Bamba séebre moo ko mën parce que ñoom dañ lay xool xool si yow Cheikh Ibra xool ci yow sëñ Bamba jàpp la tam ndax moom te loolu du jeex loo jàpp ngir ni leneen mën naa jeex mais niñ jàppantee ñun mën naa bañ a jeex ci àdduna bi ak alaxira noonu dong la demee li ma defar dafa rëy na trop trop trop moo ma tax daal may nekk. li li li fi dajaloo yëpp ci ay mbokk taalibe daayira la wala du daayira wala ñoo daje rek ay mbokk. non non non ñii mooy li ma la wax nii ñëpp c'est la c'est la fami maire yi nga gis ñëpp Salar Famille ñëpp ku nekk mën naa jaar sa tur ñi ñëpp kii Aïda waaw ah, kii sama chéri la waaw imbooj imbooj benn xam nga ko ànd ak laat soxna ama ngi nii maire bi moo ndugg woon maire Awa Fall waaw Fatim Thiam Penda Thiam Fatim ngi nii rek xaritu Penda Thiam la sama yaay Fall baa ngi nii sama chéri la kon ñëpp c'est la famille du loo xamante ni da ngay da ngay néew déedéet dañ cee jàpp parce que ay mbokk lan danoo bokk lu mënu séddoo muy sëñ bàmba waaw dañuy ñaan mi am fay leen fay yokku leen ba ñu yëg ko ci barke Seexul Xadim rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala wa sahbihi wa xadimi wa sallama tasliman safaru bam fasin junnatun jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci leeral TV leeral point net ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax mbokk yi ñoo ngi woon poste Thiaroye mais bi ñu jugee poste Thiaroye dañoo doxantu ba jàmm gën ba jàmm gën fi nga xam ne moom mooy fora euh, jaaykatu yàpp yi ak mbokki Baye Fall yi nga xam si tamit séq nañu ko ñu nekk fora ñoom ñoom tamit ñoom ñooy safar di sant Serigne Bamba 18 safar la ñu ko wax bu ñu ko waxee fépp fu mbokk taalibe nekk di nga di nga bokk si safar gi waaye tamit di nga boo di nga yëkkati sa ñaq def ko safar gi waaye tamit dama fee fekk euh, kenn koo xam si ni ci njabootu Serigne Bamba la nekk wax dëgg yàlla di doomi Mbàkke Mbàkke waaye du du sëtu Serigne Touba moom lañ fekk dinañ mbokk yi ci kanam tuuti moom itamit dinañ ko dékk sunu micro waxtaan ak moom ci safar gi waaye waxtaan ak moom ci mbokki taalibe yi waaye tamit di nuyu sama yaakaar tey ëllëg sama lépp muy Serigne Sidi Alxuraan Serigne Sidi Alxuraan jàmbaar la Serigne Sidi Alxuraan ndaanaan la Serigne Sidi Alxuraan kilifa la ci réew mi waaye tamit jëfam ju baax ji muy def ci réew mi sëriñ si alxuraan seex yooyu yëpp mën ta ñàkk yooyu yëpp mën ta ñàkk ndaxte safar gi la ñu wax seex balaa maa def nii dañuy def nii ñu jëm jël cin yi seex ñu àndandoo maak yow ñu xool lii am si cin li ubbil ma fii maa ngi maa ngi lay fay sëñ Fatou tur bi naka la man la Fatou Gaye Fatou Gaye cin li sa cin la waaw cin li sama cin la loo togg tey tey ceebu yàpp laa togg. ceebu yàpp waaw ceebu yàpp. noo gisee safar gi. waaw safar gi moom sant yàlla rek ñu ngi dund daal safar gi te xale yi foora macha allah ñoom gëmuñu lu sëriñ bi. sëriñ bi tegal sa baaram foofu ñëwal seex. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay sant. noo tudd. Marie. Marie sa la. waaw. loo togg. saf saf ceebu jën bi yàpp saf. bu saf waaw noo dundee safar gi. ah neex rek kontaan ci nag. neex rek kontaan ci nag. bi. bégg nag ci waa Fora bi. jërëjëf ma ñëw ma ñëw ñu xool fii soxna si. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fallou. yéen yor ceen lii. waaw ñoo ko yor waaw. ci lu lan ngeen def. ceebu yàpp. ceebu yàpp. waaw oh. yàpp ceeb lépp rek sëñ Bamba. bu ñu ne Fora moo aye ñooy def safar yaakaar na yàpp ceeb lañu war a gis. wallaahi moo am bàkki sëñ Bamba yàpp ceeb lañ togg dangay lekk bay bëgg a dee na ñëpp ñëw woo na ñëpp nag. jërëjëf soxna si maa ngi lay li tey. cilli waaw xoolal rek cilli nu mu demee noonu sëñ Touba moo waral lépp barki sëñ Fallou tàngoor bi ngeen di daj si cin yi ak tàngoor bi tàngoor bi ngeen di am loolu yëpp lan la sëñ Touba jaral nañu ko sëñ Touba moo ñu def nii billaahi am na ñoo xam ne ñu ngi si leneen ñu ñu ngi liggéey sëriñ Touba loolooy wër nag maa ngi lay nuyu maa ngi dolli ziar tur bi naka la soxna Mbène lan ga ñu liggéey cin li ñaari potu meew ak benn potu ananas laa ko ñu liggéey barki Baye Karim nga ne. barki Baye Karim ñaari pot meew. ah benn poto laa ko ñu liggéey. ma ne kenn lu moo xew. yàgg naa. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar. yow yaay lee yow yaay gé gé waa Fora. maa ngi ñeeñoo waa Fora waaw. ñeeñoo ah? waaw. tey seen cin li cinu lan la. tubaar fakalla macha allah danoo def ceebu yàpp rek. waaw nii lañ ko defee. tubaar fakalla Cheikh jëlee ma lii. ma yekkal ma ci El ma Mansour Diop. barke Serigne Fallou Mbacke yekkal ci Ibrahima Touré. barke yonent bi. yow xam nga tey ji dafa nekk bis boo xamante ne bis bi dafa riis bis bi dafa màgg ndax borom bis bi ni meen sëñ Touba yëpp sëriñ Touba la mënuñu dara amuñu dara lépp sëriñ Touba la barke sëriñ Fallou jërëjëf soxna si maa lay maa ngi lay naka nga dundee safar safar gi neex na chaque année nii lañ koy dundee ay benn cin lan doon teg ba fi mu nii sëñ Touba yaatal na lépp dañuy teg ay mbana yu bay jërëjëf soxna si maa lay nuyu maa ngi delloo safar gi noo ko dundee ah xanaa yaatu rek lépp lépp sëriñ Touba la kenn du Serigne Touba Serigne Touba dafa njabootee ñëpp waaw lépp daa Serigne Bamba la. jërëjëf seex seex gis nga cin lii gis nga cin lii ñu xool cin li maa ngi lay soxna si ngi fi yéen a ngi si jàmm. waa ñu bi. soxna si mën nañoo xam cin li tey euh, euh, nan la demee. cin laaj bi mooy professionnel bi laajal yaa géré maa ñoo géré nu demee tey loo ñu toggal waaw ceebu jën rek la ceebu gi yàpp rek lan leen toggal waaw man maa yaay sëñ Fallou soxna jaara eh, ñu war a gis safar gi rek jaari safar rek mu neex waaw di ñaan ñëpp yàgg fi rek ay sëriñ Abdou Karim borom makaarimal axlaa barke sëriñ Saliou mbégte safar gi tey lan kontaan rek ba bégte dinañ def def nañ laax mu jàll def nañ ceeb te incha allah dinañ def cere def ay petit pois danoo bëgg ñëpp bég jërëjëf maa ñëw seex seex du yàgg de Cheikh waaw borom cin baa ngi ne mais Cheikh dama fay fekk benn responsable boo xamante ni day yëngu ci wàllum politique kenn koo xamante ni damay gis muy daw ci li soxlay jigéen yi dama koy gis muy dox ci bëgg-bëgg yi nga xamante ni moom la askanu euh, Sénégal bëgg waaye rawatina gox bi mu dëkk ah maa ngi lay nuyu soxla Mamy Sylla. Fallou Galas Baye Mer maa ngi lay fay bu baax di la tey en tant que politicien ma fekk la ci safar gi nga futteeku di jaayante ñi ñëpp lan la. tey na jël cëru Petit Saint bi teg ko fële euh, jël cëru waa Fora dëkk foora juddoo Fora yaroo Fora màggee Fora ñu nekk ay xale yoo xam ne ñu jàmbaare xale yu baax xale yu gëm seen bopp xale yu nangoo liggéey ñu ak ñoom si bi amul murit amul tijaan amul xaaral amul ñëpp a fi daje tey sant sëriñ Touba rek Xaadim Rasuul waaw tey sant bi loolu la Fall Grasse kontaan nañ si yow di ziyaare sant waa foora yëpp sant ñëpp parce que lii nekk lu ndaw chaque at ñu def ko day gën a yokk at bi def dafa gën a yokk ñu ay xale yu am jom ah nii ay xale yu nangoo liggéey gëm seen bopp ku ne Fora wax ay jàmbaare fi ne tey sa digganteeg ñoom ak tey boo amee looy wax mbokki Sénégal lan nga leen di wax. waa ñu nekk xale yi am jom xale yi nga xam dañuy teel a xëy du dee wàcc xale yi nga xam ne oto yi rafet la ñuy concours kër yi rafet la ñuy concours leen waaye mën a jàppale nag ñu jàppale leen parce que foo Fora métti na trop. fora métti na nag yi seex na lu ñu leen mën a jàppale da jàpp parce que amuñu lépp lu ñu fora buñ neexoon ñu dem xëy di bande wala ñu dem agressé waaye defuñu loolu lépp lu ñu am ñu ngi koy yóbbu seen waajur te lépp rek si liggéey la si cadre liggéey la waaw. yow yow yow dinaa la booleeg Abdoulaye Sylla borom c cinquante Abdoulaye Sylla di nitu social di lépp gis nañ li mu def ci barabu Serigne Fallou bi 2 milliards Abdoulaye Sylla borom C50 nga di jël 2 milliards def ko ci barabu Serigne Fallou sëñ Abdou Karim nee na njabootu Serigne Fallou gépp murid yëpp ànd ak yow te liggéey ak yow Abdoulaye Sylla dinaa la booleeg sama jigéen ji nga xam ne mooy jàmbaar jërëjëf mami ñu dugg ci waañ wi borom waañ wi maa ngi lay nuyu tur bi naka la. man biisu laa tudd. xoolal caméra bi. man biisu laa tudd. biisu mën nañoo xam tey lan nga togg sa cin. ah tey dañuy safal. waa Fora ñooy safal man na mun ma wax waaye tey moom il faut ma wax xale góoru Fora yi ñu am seen fulla ak seen sañ-sañ ñëw di def defoon nañ ko nag ñetti at ñu ngi koy def waaye ren moom macha allah. dañuy ñaan yàlla yàlla yokku ñu ba ñu yëg ko. cin li nga togg tey cin li nga togg cinu lan la. ceebu yàpp laay togg waaw. Ah. ceebu tukulóor la. ceebu tukulóor waaw ceebu. ceebu tukulóor nu muy mel. ceebu tukulóor rek gis xam ne bii xam ne tukulóor a ko togg. Ah. ceeb bu saf lay doon. ceebu tukulóor day bax. day bax baar. day bax baar. baar diw ba tëmb ca kaw diw ba tëmb kaw. sóoragu ma damay xaar diw ba tëmb kaw. damay xaar tuuti. lépp lépp ci ceebu tukulóor. lépp lépp ci ceebu tukulóor. onon bandiraɓe men haalpulaar salminima. waaw ah, salminima. mi salmini eh, eh, galle fof mi salminima kamɓe fof mi salminima. E gars yi ceebu tukulóor tukulóor yi xam naa ne ceeb ngeen bëgg a gis ceebu tukulóor a ngi nii laa ilaaha illallah waaye tukulóor yi waaye bu ñu nee magu démb yi magu démb yaa ngi nii muy sunu yaay muy jëwriñu jigéen ñi yaay Anta maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay ginnaaw bi di sant yàlla di bi di sant suñu ñaani waajur di ñaan yàlla bi mooy suñu ñeenteelu émission ñu koy def bi mooy ñeenteelu yoon ñu koy def ginnaaw yàlla laay pata moo sooke lii ñu koy def affaire bi amul tijaan amul murit ndax man tijaan laa ñu jël lépp jiital ma ñu ji ma jiital ñëpp maa ko jiital. lépp na ngir yàlla ak bëgg ma. pas-pas bu pas-pas bi. ñëpp nag ay jullit lan rek te ku la woo ci maa njaago sax bu la woo ci ci ci baax nga fekk si ko ci waxatuma ak ay jullit ñun waa Fora benn bopp lañ kenn mënu ko xar ñaar ndax sama lee ñoo def nii suñu xewlee def nii amul wuute ñëpp benn lañu def nan ko ñeenti at ñi xam na ñu ngi fi jógee ñu ngi leen di ñaan yal na yàlla xare àjjana ndax xam na fi suñuy rakk fi nekkoon yàlla jël lépp te ñu doon taxawee lii ñu leen di ñaanal yàlla ñu jógee yaa na leen gënal fii dugg jox nañ ma 1 million 200 la ma jox ci ndugg mi wàllum ndugg mi bokkul nag. ndugg kese ndugg kese 1 million 200 ndax gis nga ni togg dañuy laax ay laax la njëkkee ndekki wala xaalis la togg ay añ kon nga xam ne def nañ ci xaalis 1 million 2 300 mille xalil mee laa àndaloon ak carré ñoom ñi lan àndaloon ndugg ko ñu na magasin ndugg ci lépp awa jàll dem dugg ci sew yeeg yëpp def ci ni ma la mën a xaymal daal. xam naa lu gàtt gàtt 1 million 500 dem na ci bagage. jërëjëf ñu ngi sant yàlla jërëjëf mbokki Sénégal jërëjëf mbokki àdduna ñoo ngi taxaw benn jàmbaar joo xam si ni tey ñu ko fi gisee du ñu ne guleet ñoo ngi taxaw benn mbokk taalibe boo xam si ni sëriñ bi rek lay toog ñoo ngi toog koo xam si ni jàmbaar la ci yoonu murit ndaanaan la ci yoonu murit waaye tamit lu mu boo lu mu am ak lu mu amul yëpp da koy jël def ko ci bisu sëriñ Bamba bi di jàmbaari sëriñ Sidi Alxuraan di jàmbaari sëriñ Sidi Alxuraan di sama waay di sama lépp gis ne sëriñ bi dong ko ñor maa ngi lay nuyu waaw Fallou ñu ngi lay fay bu baax waaw jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul santaat Serigne Touba bu wér rek barki borom Touba. lama ma la waxoon euh, la ma waxoon sëñ bi sa digganteeg jàmbaar yi sa digganteeg taalibe yi nga xam si ni fu ñu jugee nga jug lu ñu nekk rek yaa nga ca tey sa digganteeg jàmbaar yi lan la. waaw comme noonu rek. billaahi ñun fi lañ juddoo fi lañ yaroo xam nga ñun mooy loolu suñuy fora bi maga fi nekk ak suñuy rak di fi liggéeyee lii nag ñu koy def chaque année waaw dañ ñaan yàlla rek xam nga dañu fi yàlla bàyyi ñu fi ñu koy fekkee chaque année ba mën ko di def rek waaw parce que lii daal mbégte la rek barke Serigne Touba. am na ñoo xam ne nekkoon nañ fi daaw bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom ñooy def di dindi di jàpp ci lépp yàlla def fekkewuñ ko ren. waaw ñooñu dañ leen di fasaale rek bu baax a baax a te xam ne borom bi moom bu soxlaa keneen ku soxla da ñàkk. waaw mais nag duñ mën lu dul di leen fasaale bu baax a baax di leen ñaanal bu baax a baax a baax a baax waaw barke sëriñ Touba waaw fi ñu jëm fi ñu fi ñu dem gënal leen fi ñu jóge barke rahim wa sallallahu taala ala sayyidina wa maulana muhammadin وعلى آله وصحبه وخديمي وسلم تسليما jawriñ Abdourahmane maa ngi ci waañ maa ngi ci euh, waañ wi nga xam ne fa laa Baye Fall yi dara si jawriñ Abdourahmane maa ngi lay nuyu ñoo ngi lay siyaar bu baax a baax bi ñoo lay siyaar bu baax a baax da nga sa wàccuwaay nag Baye waaw di la di kontaan nag di kontaan si jéego nag yi nga jéego fii nag Baye waaw tey Leral TV déplacé bi mu déplacé wu ñëw di leen gugee si safar gi tey ban mbégte ngeen am waaw di ko rafetlu baax na di kontaan nag ci loolu nag di ci kontaan bu baax a baax a baax baax wax dëgg fa la instant moom xool sedd na dara war loo ko nag loolu seen bàmba gisoo kontaan nañ ci lool nag lool lool lool xool sedd na lool sax waaw wallaahi macha allah tey euh, tey nga ànd ak say rak ak say xarit liggéey bi mbaa jafe woon na pour nga ànd ak say rak dajale leen wax dëgg fa yàlla liggéey sëñ Bamba moom yaakaar naan jafe-jafe amu si moom waaw ndax liggéey sëñ Bamba moom yaakaar naan moom boo jeegoo rek moom mu jeegool la waaw ndax wax dëgg fa yàlla bu dëgg moo tax yàlla amuñu si benn jafe-jafe wax dëgg fa yàlla macha lépp mat na moom wax dëgg fa yàlla macha allah tey boole boo ma doon xayma lan nga li ngeen def ci xaalis ci lépp ci wàllum safar gi mën nga ma wax lim bi ñaata la waaw nii nag moom wax dëgg fa yàlla bu leexee dëgg dëgg nag yàlla waaw luñ ko tax xamee yëpp moom wax dëgg fa yàlla waaw romb nañ un million ci dem moom wax dëgg fa yàlla te di ñaan yàlla nag moom gisoo ko dem ci ay milliards de milliards nag ndax daaw rek ndax bu ñuy soog a tàmbali amuñu fañu sax ko waaye comme que nag ren nag da romb nañ un million yi di ñaan si yàlla rek mu dem ay milliards de nag lépp lu ci am rek def ko ci nag baaw si doole doole borom bis bi jërëjëf waaw euh, yi euh, Serigne Fallou docteur jàmbaar ji nga xam ne bu ñu déplacé woo ñëw rek grâce waaw ñu koy sant bu baax a baax muy jàmbaar ci Serigne Fallou docteur bëgg sëriñ Fallou docteur nag maxu tey euh, gannaaw bu ñu leeral TV def déplacement ñëw. asalaamaaleykum mbooloo bi maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp. di sant sama yaakaar tey ak ëllëg Serigne Fallou Mbacke docteur. waaw ah lii nag moom lu ko waral mooy ne Fora ñoo àndandoo bokk ndey bokk baay àndandoo doon benn. ndax Fora dafa jaxasoo Fora li fi nekk am na njaago am na mankaañ am na façon xeet bu nekk te ñëpp dañoo boole seen dërëm ak seen fukk ak seen doole ak seen ñàkk di ko si def loolu nag lan moo ko waral mooy Serigne Touba képp moo waral xol yooyu noonu tàppe doon benn kon duñ ñaan yàlla nag déwén mu gën a yokk gën a dépassé fii waaw suñu boroom gën a tàppe xol yi ndax fii suñ mu taxaa moo ko tuddee Touba Fora waaw suñ mu taxaa bu suñ fàllu kon loolu du hasard. sëñ Moutafa Moussa sëñ Moutala bu sëñ Fallou moo ko tuddee Touba Fora waaw teg fi tànkam fii kon fii du hasard waaw kon tey suñu àndee ñun chrétien yeeg mankaañ yeeg ñëpp mënoo xàmmee fu mu toll nii kuy murit wala kuy julit wala leneen. wala kuy Tidiane dafa mel ne yi tey jëy ñoo ci gën a am pës Tidiane amu fi laa lay wax essayé nii ñëpp Serigne Touba la ñuy dund ndax Serigne Touba moo leen ko jaral ndax ay chrétien ñi ngi fi sànq ki nga dëkkoon kon micro bi kooku chrétien la ndaw soos noonu. Hmm. waaw ak ñeneen ak ñeneen. mais loolu noonu lépp Serigne Touba moo ko waral Serigne Touba moo moo waral lii nii lépp. Serigne Touba moo jaral gaay moo waral gaay mun a tàppe xol yi mu doon benn. fooraa yëpp àndandoo doon benn te yàlla na suñu boroom gën a tàppe xol yi ndax fora amul xaj amut seen. waaw si lépp lu ñu songu nag ndam rek lañ ciy jëlee ndax seen xol yëpp moo boole doon benn soo nee fora nag ni nag soo nee fora ndawal soo nee fora waa Fora def nañ lu nit musut def muy yàpp ceeb fii rek la amee ba ci kanam mbokk yi ñu doon seetaan ci leeral TV leeral point net mbokk yi jërë ngeen jëf ànd ànd ànd ah, bi ngeen ànd ak ñun mbégte bi ngeen ànd ak ñun ñun la ak yéen ci leeral TV lay xewee leeral point net mbokk yi lépp lu xew bi Touba ñoo ngi leen koy wan waaye lépp lu xew ci banlieue bi waaye lépp lu xew ci ci safar yi nga xam ne moom moo nekk ci biir Sénégal li ko wër yëpp. mbokk yi dinañ ko ànd ak yéen man la ak yéen dinaa leen toppal dugal leen ci ruq yi wan leen li nga xam ne moom la mbokki taalibe yi di def ci safar gi waaye wan leen julliti yàlla yi nga xam ne si ñoom ñoo ñëkk ci seen ñaq parce que boo xoolee tijaan bi moo ngi ci def ñaqam layeen bi moo ngi ci def ñaqam murit bi moo ngi ci def ñaqam cana ba cana moo ngi ci def la ñaqam law la ñeseen ñoo ngi ci def sa ñaq mbiru Sëriñ Tuubaa am xamewul kenn képp ku jullitu yàlla rek rawatina dégg nga mbokki njaago yi sunu mbokki njaago yi ñoo ngi ciy boole seen i déem ak seen daqaa di ko ci def ñii ñaan yàlla yàlla def jàmm ci réew mi yàlla nañu yàlla doolee jàmm màggal gi lu si waay ñaan yàlla na suñu borom nangu mbokk yi Abdoulaye borom C50 ma yow rek laay topp jeex na. mais Aïssatou Camara maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fal fay sin fàllu di leen sant di leen gërëm seen teewaay bi tey tabaarkalla macha allah rafet na teew nga fi nga war a teew ndax yow am coloré nga mun na nekk xam mu bari man xam naa la toujours dama lay gis ngay ànd ñoom Mbaye Fall. day ñëw kër Mbay Fall te foofu sama kër la te man ak xale yi tabaarkalla macha allah ñoo yàgg fanweeri at du ñette fan du ñette weer dama yàgg ak ñoom te jàmm rek la sekk ak ñoom wax dëgg yàlla. sa digganteeg xale yi tey ku ne xam na ne 18 safar la ñu wax Serigne Bamba woote ci bernde ak lu sedd ak lu neex rek la woote ci wàllum lekk tey lan nga ñu mën a wax sa diggante xale yi ñu jël lépp jox la ngay seen yaay. ah tabarkalla macha allah di ñoo def seen doole rek yoo xam nga foora moom du des gannaaw berne yi moom dinañ ko def ren da Serigne Fall ñu ñëpp yoo ko bokk Serigne Touba ñu ñëpp ñoo ko bokk at bu ne diñ koy def rawantuma ren moom tabarkalla macha allah ay nag la ñuy jënd lépp lañ jënd dara manqué wul ku ci ñëw da ngay lekk ba suur naan ba mandi tabarkalla macha allah. bismillahi rahmani rahim wa mawlaana muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa xadimi wa salama tasliman safaru bamsasin junnatun jërëjëf mbokki senegal jërëjëf mbokki àdduna ànd bi ngeen ànd ak Leral TV ñu leen wan euh, fépp fu safar nekk fii ci Ndakaaru waaye fépp fu safar nekk fii ci banlieue mbokk yi dinañ leen ko toppal mbokk yi li lañ leen indiloon demal nañ leen fële sa posu yi gis ngeen lafa xew waaye tamit ñoo ngi fooraa gis ngeen la fi xew muy ay safar yoo xam si ni ay mbokki taalibe def nañ ko def bernde jox doomu aadama yi wax dëgg yàlla fay yàlla la waaye tamit mbokk yi di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal ànd bi ma ànd ak madame Senghor suma xarit suma lépp suma jigéen suma séeri maa ngi lay nuy bu baax a baax di la jaajëfal sëñ xaadim euh, moom euh, moom sëñ baara sëñ xaadim moom sëñ baara maa ngi koy nuy bu baax a baax sama xarit su ma lépp sëñ Xaadim maa ngi lay nuyu di ñaana sunu borom guddal sa fan di ñaana sunu borom yokk ko wax dëgg yàlla yow taxawaay bi nga am rek ci eh, wax dëgg yàlla ëtt sa ëttu maam doy na waar wax dëgg yàlla te rafetlu lañ ko trop li la ñaanal sunu borom defal leen jàmm mbokk yi Assane Sylla maa ngi lay ñaanal sunu borom defal leen jàmm yéen laa àndaloon mbokk yi si safar gi ànd ak yéen bi nga xam si ni am na ci bis bi nga xam ne Serigne Bamba woote na ko ah, muy 18 safar ñoo ngi leen ñaanal sunu borom defal jàmm maa ngi nuyu ñëpp mbokk yi DG Abdoulaye Sylla jërëjëf Assane Sylla jërëjëf waaye Saliou Sylla jërëjëf mbokk di leen jox dig daje beneen yoon ak Leral TV Leral point net seex rek laay àndal toujours si safar bu ne ak leeral TV leeral point net jërëjëf mbokk yi. bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa xadimi wa sallama tasliman safaru bamsasin junnatun